Assalamualaikum warahmatullah rahmatullah mbokk yi ñu ngi nuyu mbokk yëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ci yéen di ñaanal suñu réew suñu borom def fi jàmm def ko ci bi rawatina fan yi nga xam ne nii ngi ci jamono yi campagne électorale nga xam réew mi jaxasoo na fitna gi bëri na ñu ngi wo ñëpp ci dal rawatina ndaw ñi di leen wax ni réew mi seen réew la yenn seni ëllëg la tamit ndax mag ñi danañ dem bàyyee ko fi ndaw kon bu ñu fexe ba mu yàqu bu yàqoo ñun la yàqul kon ñi ngi woo ñëpp ci dal fan gis ngeen ni amna na ay ndaw ñoo xam ne ni jot nañ cee ñàkk seeni bakkan ñu ngi koy jaal seeni mbokk euh, di ñaan mu gëj fi lii di woo ñëpp ci dal tey nag ñi ngi bëgg a ci bëgg waxtaan ci beneen angle gannaaw bi ñu defee chronique yi euh, Maba jaxu Ba def ko ci Thierno Souleymane Baal def ko ci le système politique sénégalais ñu ne tey nañu waxtaane beneen tem mooy le candidat idéal mooy kan mooy candidat bi gën ci suñu réew ndax jàpp naa ni ndaw ñi ci lañu war a waxtaan waaye du ci ay xiiroo ŋaayoo euh, ndax li tax ma gën a waxtaane tem bi mooy dama toog samay élèves di ma laaj naan ma kan ngay voter man leen déedéet man waruma leen wax ki may voteel waaye mën naa leen wax ci yan critère ngeen di tànni ki ngeen di voteel yeen moo tax ma bëgg koo partager ak ñëpp dama jàpp ni Sénégal dañuy folli waaye du ñuy fal te élection présidentielle du pour folli mais pour fal la ndax fu mu toll nii amatu amaguñu njiitu réew ku ci nekk ngi samp ndëndam juróom lañu am ñu samp seeni ndënd yaakaar naa jafewut ku ci nekk toog déglu leen ndax bëriwul ku ci nekk toog déglu leen jàngat ne kan moo gën ci sama réew moo tax ma bëggoon a teg ñetti critères yi mooy les 3 P moom laa wax sama élève ma ne leen man 3 P yi ci laay tànnee sama njiitu réew man xaw ma keneen nag ñetti P yi mooy profil programme ak parcours profil mooy nit ki programme mooy la muy teg kenn yi mu teg ne moom ci lay doxal réew mi parcours am mooy jaar-jaaram ndax programme nit a koy doxal moo tax ma bëgg jiital profil profil nag dama ko xaaj ñetti ponk mooy ki may fal njiitu réew nit kooku dinaa ko bàyyi xel ci son savoir mooy maanaam xam-xamam son savoir fair mooy compétence am mën-mënam ak savoir-être mooy comportement mooy jikkoom ma gën koo faram-fàcce mu gën a leer euh, savoir mooy xam-xam ki may fal xam-xam foog mu am xam-xam boo xam ni xam-xam bu mate la xam-xam bu leer la boo xam ni dana ko mën a jiite suñu réew ndax réew kenn du ko jiite ci ñàkk xam-xam xam-xam moo jiite réew comme xam lan la suñu réew soxla xam lan la suñu réew laaj. xam fan lay mën a ame walla ci yan yoon lay mën a jaar ba mën a génnee suñu réew ci jafe-jafe yi mën a soqali suñu réew kon mbokk yi gannaaw bu jógee ci xam-xam ñaareeli ponk bi ma teg ci profil mooy savoir faire mooy nit ki mën naa am xam-xam waaye foog mu am compétence foog mu am efficacité c'est-à-dire foog mu foog mu doon ku efficace foog mu doon koo xam ku xarañ la ci mën doxal réew mi mu am capacité wu mën a jëmale réew mi fu baax kon compétence boobu dañ koy xaar ci képp ku xam ne nii képp koo xam ne ni samp na ndëm bu bëgg yor suñu réew kon nañ koy natt nattukaay boobu nañ ko teg mbokk yi ngi ci ñëpp ndax réew foog nga xarañ mën koo nga am ay pexe yoo xam ne nii mën nga koo làqarti ba mën a yóbbu mi fañ bëgg duul ay wax kese leneen li ci topp ci profil moy, le savoir être moy comportement wu ki nga xam ne nii samp ndëndëm jikkoom ndax jikko dafa doon lu am solo jiitu réew dafa wara am jikko ju rafet ndax nit ñi dañ ciy bàyyi xel ndaw ñi dañuy dañ koy bàyyi xel kon njiitu réew jikko ji mooy foog mu doon patriote foog mu doon patriote mooy ku bëgg réewam ku bëgg aw ñoñam ku bëgg aw askanam bëgg liggéey kuy jéggal di jë jëlali kuy jéggale di jëlali

suñuy candidat yi nga xam ne nii ñu ñu ngi samp seen dënd foog ñu nattee leen ci patriotisme loolu moom maa ngi ci woo ñëpp ñu bàyyi ko xel ñu bàyyi xel profil ndax programme am na solo wax ji neex na waaye ki ñuy fal kan la loolu ba ñett mat a bàyyi xel la leneen li ci topp mooy programme programme foog ñu toog jàngat ko seetantal ko surtout média yi ñaareel dañ ñuy nax li gën a am solo ci discours candidat yi duñ ko jox waaye ay faits divers la ñuy jox ay diw xas na kii diw dóor na kii diw def na nii xoolal réseaux sociaux yi li ciy daw candidat yi ñu ngi wax programme yi am solo mais nañ jéem a tënk seeni programme ci wolof gën koo leeral askan wi ñi nga xam ni ñi ñi ngi nekk ci gannaaw candidat yi ni ñuy fexe di fësal programme di ko tënk ci wolof di ko fësal askan yu mën koo dégg xam ko seetantal ko programme bi nañ ci natt yi nga xam ne nii yu am solo la ci réew mooy suñu wàllu koom nañ ko ci natt tey njàng mi wér gu yaram bi mbay mi yooyu nañ ko ciy natt ku ci nekk secteur bu mu nekk na ci natt boppam ne man kat candidat bi li teg ndax lii nii am na njëriñ ci askan wi am déet kon loolu nattukaay la yoo xam ne ni képp ku ci nekk ci citoyen yi ci réew mi na ko bàyyi xel bu baax ci candidat yi ndax suñu média yi dañuy nax yenn saay di ñu divertir ci yoo xam ne nii amul njëriñ débat yenn saay ñu déglu ko ay xuloo ki xeex a ci nekk kon ku ci mën a liir na dem gëstu programme ku ci mënta liir na ut ko ko firil programme yi ki nga xam ne ni kan juróom yi teg nañ ko ñu xool lan moo ci suñu njëriñ ñu jël ko votel ki nga xam ni mooy ki nga xam mooy le candidat idéal yenn saa yi ma gis ci réseaux sociaux yi ku ci mel ni fan yi Ouzin mi nga xam ni ab la dem na ci benn euh, meeting dem fa woy fa tudd beneen candidat am ñoo xam ne ñëw dal seen kaw mais loolu ñun ban njëriñ la ñu amal ñu koy wan ñun la ñu wax ci meeting bi ci wàllu programme ci ñu war a loolu la war a yónnee loolu la war a dagg coupé ko yónnee ñu ko ndax ñun ñu man cee xam suñu ëllëgu réew ko xam ku ñuy fan kon loolu ñu ngi oo képp koo xam ne mi ngi yëngatu ci wàllu réseau ci wàllu internet ci wàllu télé gi rajo nañ ñuy jàllale li nga xam ne ni mooy programme bi mbokk yi teg programme bi nga xam ne nii euh, candidats yi teg nañ ko beneen bi ci topp mooy bi mujj mooy. programme bi nag ku ci nekk xañ na dina ko jàngat ñu xool ni mu koy jàngati ni mu koy gëstoo ba am ci lu leer bi mujj mooy parcours parcoursu candidat bi xool démbam xool tey ndax mënu ñëw rek ñu ne tey baax na lépp baax na donc kii lañu war a fal déedéet foog ñu jàngat démbam jaar-jaaram démb ana fan la bàyyeekoo ba fa mu yegg si tey démbam ak teyam foog ñu bàyyi ko xel kon nañuy bàyyi xel parcours. nit ki ci boppam buñ ko bàyyee xel dina tax bu ëllëgee lépp lu mu def duñ ko rëccu xañ na audio bi mi ngi gudd li ma bëggoon partager la ak euh, samay mbokk citoyen ñuy woo woowaat nit ñi rek ci dal woowaat leen ci jàmm xam ni responsabilité la ku ci nekk jóg dem voté ji dañuy seetlu nag ndaw ñi euh, coow li mën nañ cee bari loolu waaye bu ñuy voté ñoom mag ñi ñooy teel a xëy dem voté ji ñëw toog seen kër ñi ngi ñaan ñëpp dem bu boobaa nañu mobiliser ndaw ñi képp ko xam ni rek ndaw la mës ta voté ñu ci bëri dañu yor carte da ngay dégg man mësuma voté ah man coono bi da mënumaa nekk fii di te mu ngi jaral coow xuloo ki xeex na la jaral nga dem voté ji xëy fajar dem rang voté ji ñëw toog sa kër déglu sa rajo seetaan sa télé bañ fee nekk di xuloo di ci bureau de vote yi naan damay jéem a saytu lii ak jéem a saytu la am na ñoo xam ne ñoom lañ féetaloon mbiru saytu nañ leen bàyyi ñu saytu lu ñu saytu kon ñu ngi gërëm mbokk yi di sant ñëpp seen mbokk la rek bëggoon a partager ak yéen euh, di ñaanal suñu réew mi encore une fois yàlla def fi jàmm élection yi jàll ci jàmm euh, réew mi nekkaat ci jàmm ku ci nekk dem ci liggéeyam suñu borom. tànnal ñu ko gën ci réew mi seen mbokk la seen xarit Mamadou Dieye kàddu yi lépp lu ci dëng xam ne ni suñu matadi la lu ci jub xam ne ni suñu borom la salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.